xale bi nga xamante ne dafa doon lu bëri tey moom lañu seet si mu war a bëri un très grand champion muy Gris Bordeaux kon Ama Baldé dañ lay bàyyi nga nuyu yi bopp bàyyi laa nga nuyu réew bàyyi laa nga nuyu waaw dañuy sant yàlla bu baax a baax dañuy sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di santaat yàlla bu baax a baax di julli si yonent bi di santaat yàlla bu baax a baax di julli si di sant sama sëriñ sëriñ di sant sëriñ Saliou di sant sëriñ Saliou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 def def du ma bàyyi sama yoon. non loolu mënul nekk am xam jarul sa conseil nit comprendre nga kooku moom moo ñu woo si loolu dañ koy wuy si loolu bu baax ay xale yu ndaw lañ duñ daw loolu comprendre nga lu ñu war a def yëpp dem na en tout cas ñun naxuñ ñu nekk nii dañuy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla yóbbu si bis bi Sénégal yëpp bu arbitre sifflé ñu toog déglu ñu xool seetaan lu ñu war a def ak lu ñu dëm est-ce xam nga ni boo daanee Gris Bordeaux ci ci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 wala ziar bu baax. mu mel ni sa adversaire Gris Bordeaux yow boo xoolee ci sa carrière dugub yi nga dugg Pikine yi nga dugg Fass yëpp ñàkkoo ci benn moom dugub yi mu dugg Pikine benn la ci ñàkk wala bu ma seet moo ko fi daal am na fi ay ndam yu kawe kawe mais ci jàkkaarloo yi dama seetlu mu ne la maa la bu doole Gris Bordeaux bu jàkkaarloo ak yow ne la moo la bu doole loolu yow bi nga ko déggee la ko moom la def ak moo ko bu doole. moom bu doole fuuf fuuf fuuf Gris Bordeaux moom bu doole nangul naa ko bon parce que moo ko bu doole gëm naa kañ moom bu doole fop waaw maanaam Fass mosoo faa ñàkk combat uh-huh. nga ñëw fa tey daan nga fa rek kon nuñ ko doon defee rek koo ma dem jàpp ko daan ñëw jox ko waa Pikine comprendre na am na loo sax mënul nekk waaw dem jàpp daan dem indi ko waa Pikine bu neexee yàlla incha allah. am ay nitu Pikine yu ko baal ci combat bi parce que yaa leen dugal roi des arènes te ñoom lañ combat bi taxu leen a jug ñoom da ngeen koy indi. dégg ne leen Pikine lu ñu war a def yëpp def nañ ko laajuma dara sasuma dara bu ñu amee jot nañ ñëw stade lu ñu war a def man maa koy def.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 non ma ne ma ne Ama Baldé Gris Bordeaux combat bi c'est le combat de sa carrière combat teg jeexal parce que combat bi ko jaral lu ne combat bu mën a am combat bi moo ko ci parce que combat bi moo ko dugalaat ci lamb mu koy génnawaat ci lamb lan ngay wax ci loolu. man xale bu ndaw nag Gris Bordeaux lu mu war a lekk yëpp lekk. Ama yee. waaw waaw. xaaral ma tontu ci loolu ba pare. waaw dama ne man man man pare. waaw. ajo ñëwal ñëwal ma la wax man xale bu ndaw boo ko Gris Bordeaux mos na lu nekk si làmb am na lu nekk si man mii nga xam ne defaguma dara si làmb moom bu ma gënee fonk rek boo mën a wax ñàkk jom lu ma kon am na yoo xam ne jarul wax lu si kanam rawatina dimanche soreetul noo lay fay waaw kon lu ma lay wax rek joxe sama bopp rek maa ngi gërëm sama mag Silbale bu baax a baax di gërëm ku mel sama xarit ah, Malo Seras ak sama sa boo yi nekk écurie bi ak kër su Codé maa ngi leen bu baax baax xam naa lu ma teg xam naa lu ma daj dañuy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla suturaal ba bis ba. keneen ku am question. Babacar Lamine ah. Lamine déedéet jeexagul. combat mën naa gaaw ah. combat mën na gaaw mën na yéex. lu mu laaj rek nañ ko def. yow ban moo la ci dàq lan ngay waaw waaw waaw waaw dañuy sant dañuy waa Pikine bu baax a baax dañuy sant waa bu baax a baax di sant ku su mel ni sama mag ma Sène gis naa nu mu taxawoo sa bis bu baax a baax ku su mel ni sama ah, sama ah, sama frère Boy Niang maa ko jaay yàlla na ko suñu borom defal jàmm ku su mel ni Sokh gis naa mu taxaw ku su mel ni Prince comprendre ku su mel ni Ndiaga Boston xam na ku su mel ni mbëru Pikine yëpp sama waa équipe ñoom Valdo maa leen gërëm ñoom ku su mel ni ah, gis naa ko nger bu gis naa ko waa Pikine ñëpp mbër yu Pikine yëpp maa leen gërëm bu baax a baax di gërëm nag ah, ah supporter Maria Afia maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm nag sama mafia bu baax a baax waa Pikine bu yàlla nañ ma xaar maa ngi ñëw jox leen ndam bu man.